rassemble les responsables dinaa ci ñëwaat léegi mais balaa may wax ak responsable yi yéen lay njëkk a waxal yéen lay njëkk a waxal engagement bi détermination bi gisuma ko fu bari ci biir Sénégal mais pour qui connaît le Saloum xam ni ay nitu borom borom pas-pas nekk xam ni bu jàppee jàpp ngeen kon ñun nag man personnellement man maa des ak man ak l' ensemble des responsables te dina ñëwaat mais mobilisation bu day nii ak waxtu wi fi ñu ko gis bariwul mais surtout dafa ñëw ànd ak une unité des responsables. xam nga Benno Bokk Yaakaar s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Benno Bokk Yaakaar monsieur bi moom bu tàkkee xajul ci dara xajul ci kenn et Kaolack Kaolack Kaolack l'a démontré ce soir liggéey ci région bi ba tey Nioro lii ngeen wone lii ngeen def j'ai pas dimanche prochain ci waxtu yi fii ngeen di taxaw di jubilé Parce que vous travail de consolidation. Le travail d'amélioration. Le travail d'accélération va être entrepris immédiatement. Le premier défi du bassin arachidier, moi, il faut

mu doonoon dans l'histoire du Sénégal ñu war a fexe ba rôle boobu ñu gën ko yokk gën ko amplifier parce que li mën a dundal Sénégal mën na jógee fii ci biir Saloum moo tax ma tàmbalee projet de restauration des sommes ici aussi. bu boobaa bu boobaa bu boobaa agriculture élevage dina gën a mën fii entreprise dinañ fi mën a ñëw parce que fii fi la ñuy transformé li ñuy dundee mais loolu yëpp ciy liggéey. waaw. looloo tax. Je veux le président de l'emploi des jeunes. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est d'abord le présent pour La jeunesse, c'est le présent. Oh, nekk la nga war a liggéey dafa dépendre ci environnement bi nga dëkk am na loo xam ne buñ ko defaree ci biir Kaolack liggéey yu bëri dina fi mën a développé wu aussi bien dans l'industrie que dans les services loolu jàpp leen ni dafa war a tàmbali dès le mois d' avril du ay digaate xam nga xam nga tey damay wax ci ay kanamu seede ana ana Moustapha Ba bu ngeen ko wàccewul bu ngeen ko bi laa tourné dafay doomu Saloum nekk ministère des finances ñun dañ doon digaateel loo xam ne teguñu ci loxo dama ne lay jox xale yi liggéey war a jaar ci souveraineté alimentaire bokk na ci xoolaat suuf fii ci biir Kaolack Moustapha dëgg la wala dëgg am nga xaalis wala am nga ko. léegi xaalis bi banque mondiale joxe na une partie état du Sénégal joxe une partie. léegi nag loolu pour mu ñëw pour mu ñëw pour mu ñëw. da ngeen di teg Sénégal ci ay loxo yu wóor. loolu mooy premier point bi jërëjëf xam ngeen ni xam ngeen ni s'il vous plaît xam du yàgg

kon bu ma leen ne Sénégal dañuy jëm ci naataange à partir de 2030 war ma gëm bi ma demee Medina Baye xalifa bu tedd bi xalifa bu tedd bi yéen xoolatuma leen sax xoolatuma leen léegi bi ma demee Medina Baye xalifa bi daf ma wax problème mu assainissement parce que fii bu tawee dafay inondé maanaam dina taa ndox mi di yéex a dem. un programme spécial d'assainissement de Kaolack sera mis en œuvre dès 2025. boo ko booleeg defaraat tali yi réparé ko sunu jarbaat ak sunuy doom yi yor Jakarta dinañu mën a dawal en toute sécurité. ku wax Kaolack wax Dóoru loolu dafa ànd ak histoire Kaolack yàgg na donc il faut que ñu améliorer sécurité bi pour que xale yooyu mën di liggéey correctement. troisième défi bu Kaolack mooy ndox mu neex. jàpp dama bëgg ngeen jàpp dama bëgg ngeen jàpp juróomi at yii di ñëw waxuma président de la République du Sénégal déedéet dama ne je vais être le président des Sénégalais ku nekk ma fekk la ci sa quartier fekk la ci sa région fekk la ci sa kër xam nooy dundee fexe ba mu amélioré wu ci lu mu gën a gaawee. bu boobaa bu doomu Sénégal am ndox mu neex am courant bu doy. budget mën nga ko wala mënoo ko. mën nga ko wala mënoo ko. di ko def wala doo ko def. di ko def wala doo ko def. di ko def wala doo ko def. le président de l'emploi des jeunes du maa ko mais xam ngeen ni pour nga mën a liggéey liggéey bu mucc ayib bu dëppoog bu dëppoog ni jamono di doxee foog ñu formuler bare nga wala bare nga Njàng mi dinañ ko yokk leen leen liggéey mais ñëpp ba pare nag xam kaw nag. dafa yàgg am ay homme d'affaires ay homme d'affaires yu bari doole Kaolack dafa yàgg am ay homme d'affaires yu am bari doole booy romb fi dañ lay wax kii mooy jumaawu Njuga Kebe ñu daan dégg ndem si yàlla Babacar Ba ana raxma nga kii gis nga kii dafa war a am xaalis di créer ay emploi fii ci Bambey dafa war a am xaalis di créer ay emploi fii ci Kaolack moo tax ma waxoon ni fii ak ñetti weer dina créer banque de développement bu mag buy financer suñu opérateur économique bu boobaa la ngay liggéey dina gën a yomb bu boobaa la ngay am dina gën a sakkat bu boobaa xale yi nekk fii dig leen mën a tàggat ba ñenn ci ñoom mel ni yow suba wala ëppale la suba mën nga ko wala mënoo ko PM loolu mën nañ ko te am nañ yaakaar ci yow na da ñu jàppale pour ñu def loolu mais isan xam nga xam nga xam nga xam nga réew bu dëgër réew dafa soxla administration bu dëgër boo amee empli ay ay ay emploi ay homme d'affaires amoo amoo administration dara du baax mais benn jour

chantier yi ñuy njëkk a ubbi chantier yi ñuy njëkk a ubbi chantier yi a bokk na ci bokk na ci soppi xar administration moderniser ko réformer ko moo tax ma woo ñii nga xam ni ñii nga xam ni ci administration la ñuy yëngatu Moustapha xam na 2014 2014 lañ ñu waxoon Sénégal foog ngeen def réforme de l' administration. xam nga ñun su ma taxawee fii s'il vous plaît s'il vous plaît. su ma taxawee fii soutenu appuyé par Benno Bokk Yaakaar bu ma taxawee fii président Macky Sall qui a décliné une vision sur vingt ans vision boobu ay projet la waaye ay réforme gis nga nii ñii lay àndal ñii lay àndal fexe ba administration nekk à service et l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager l'ensemble de ce pays man ci ñoom laa man bokk ci ñoom laa jógee xam na li ñuy daj ils sont très nombreux je peux même dire tous ils sont au service de la République ils sont pour la bonne marche des institutions de la République ils trouveront en moi le président qui va engager les réformes mais qui va consolider les capacités de l'administration et qui va les renforcer jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam nga réew am na ñoo xam ne ñu ngi liggéeyal seen bopp moo xam notaire la moo xam huissier la moo xam avocat la ñooñu aussi ci mbir mi ñu bokk moo tax je salue maître Nafisa Diop gis nga nii bu ñu liggéeyu dara du ci réew nga ne docteur Diallo ñu ñuy faj moo ñuy faj am naa fi benn xarit Diène Farba Sarr grand économiste maag moom dañoo nekk conseil des ministres rek di di wérante mais bu ma ñëwee am na fi ñaari nit yu ma bëgg a distinguer le premier ministre la nekk Souleymane ana Souleymane Souleymane maa ngi lay nuyu maa ngi lay félicité di rafetlu sa engagement à nos côtés depuis le début. Maître El Hadji Diouf maa ngi lay sant di la gërëm di saluer ton courage di saluer ton courage Maître El Hadji Diouf a été toujours et toujours à mes côtés. depuis le départ maa ngi koy sant je n'oublie pas les députés les hauts conseillers de la République je n'oublie pas les conseillers économiques sociaux Souleymane Souleymane maa ngi yow démb la woon kii dañoo yàgg te bi yëf yi yëngoo bokk na ci ñu a jël position c'est un homme courageux c'est un homme déterminé c'est un homme engagé c'est une connaissance de plus de 30 ans merci Souleymane Ndéné Ndiaye pour ce kenn du ko fàtte Mounirou kenn du ko fàtte Mounirou kenn du ko fàtte Mounirou kenn du ko fàtte merci li tax li tax ma defee lii li tax ma defee lii dama leen bëgg a wan nii unis nous sommes les li tax ma defee nii dama leen bëgg a wan ni dimanche prochain bu Mélisée ñoom dañ may wër ak ñeneen ñu ànd liggéey TV ses invitations maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf